Mouhamed Samba Djim ñu gën koo xam si Hannibal Djim bokkoon si FRAPP waaye nag doon koo xam ne da doon yëngatu si wàllum social tey ñu toog ak maanaam ki nga xam ne moo di rakkam di Papis moom it doon ab activiste Papis ginnaaw gi ñu leen nuyoo jaajëfal ñu bàyyi la ak internetu T3 bi nga nuyonteeg naa leen sant naa leen maa ngi leen di gërëm ci ci visite bi. Euh, booba tey ñu teg loxo ki nga xam ne mooy sa grand frère di Hannibal Djim euh, njaboot bi nan la koy dundee. ci nangu ndogal yàlla tamit euh, di jàppale maire bi jawaru Hannibal ak euh, am di jàmm yi di leen wax lu yàlla def loolu moo gën ci doomu aadama ñu ngi koy métital parce que Hannibal njiim deful dara lu tax ñu koy jàpp. Hannibal ñëw fi janvier 2023 ñu teg ko loxo si je ne me trompe pas le 8 février naam la doon takk si soxna ndax yaakaaroon ngeen arrestation fii nii ci Sénégal. Hannibal Djim avant mu ñëw ku nekk waxoon na Hannibal soo ñëwee eh, fii ci Sénégal Macky Sall daf lay moom lu mu wax defuma dara lu tax may dew sama réew donc man saa yu mu buggee ñëw Sénégal dinaa ñëw ak lu mun ci am Sénégal laa dëkk sénégalais laa comme ñépp su ma soxlee ñëw Sénégal dara mënuma téye dara mënuma xoxotal pour ma bañ ñëw Sénégal donc Hannibal Djim dafa ñëw naturellement mu mu takk jabar dem lune de ñëwaat deux jour après wàcc pour dem jënd ndekki ay ay voyu ñëw fii ci buntu gàll bi ñu jàpp ko joxuñu ko sax maanaam temps pour mun a avertir waa famille bi wala euh, woo kenn mais waa mbedd bi ñoo ñëw fii jox ñu information boobu. Hmm. jox wax ñu ay voyous ñëw nañu fii agressé seen seen grand frère yóbbu ko ñun dañoo def ay recherche woote woote fépp après ñu wax ñu ñoo waa sûreté urbaine ñoo ñëwoon fi ñu jàpp ko xam nga police sooy jàpp nit boo xamante ni xam nga kër rërëm ñëwul bàyyi ko nga jokkoo benn convocation mu ñëw wuyu si la koo xam këram xam nga fu yaayam dëkk xam nga fu dëkk fu mu dëkk xam nga fu jabaram nekk xam nga kooku noonu daw. jool mm-hmm. jox ko convocation mu ñëw wala soo ko jàppee sax nga avertir waa famille bi ñu xam kii police de moo ko jàpp mais jour boobu waa mbedd bi nañu wax ay voyous ñoo ko ñoo ko jàpp ñu dañoo dem ba ci kanam xam ni non waa sûreté urbaine la xam nga loolu dafa ñaw mm-hmm. euh, tey mu am lu bëri loo xam ne teg nañ ko si ndoddam Euh, waxoon nañ fi li nga xam ne moo di ay financement yoo xam ne da ko doon def wàllum Kopar Express am na aussi loo xam ne moom lañ ci doon joxoñ baaraamu tuuma euh, tey yi nga xam ne moom lañ teg si ndoddam ndax jàpp ngeen ne moo def loolee. non Hannibal soo xoolee ay mbiram dafa doy waar parce que état ci boppam ñoo ko jàpp mais xamuñ lu tax ñu jàpp ko ñoom ci seen bopp ñoo ko jàpp mais xamuñ lu tax ñu jàpp ko parce que jour bu ñu ko jàpp dañ koo jàpp yóbbu ko commissariat central. Euh, maa ngi remercier maître Touré Chiba ak euh, maître Moussa Sarr maître Moussa saar ñëw foofu ñëw laajte lan la sama client def ñu ne ko sa client maanaam Hannibal Djim am na benn jamono dafa demoon benn publication Facebook publication Facebook bi de moo tax ñu jàpp ko maître Moussa Sarr mu ne léegi est-ce que mun naa gis publication bi pour ma constater ko. ñu ne maître Moussa Sarr demal ba ci kanam ñu woowaat la nga ñëw ñu won la ko mu dem ba ci kanam mu ñëwaat mu laaj ci publication bi ñu ne léegi nekkutul publication léegi lu ñu gis mooy sa client bii dafa bokk force spéciale tout en sachant que Anibal Njim époque maanaam mars 2021 époque boobu la ñu jàppoon ni ñu tuumal leen ay affaire force spéciale époque boobu Anibal nekkul woon Sénégal Canada la nekkoon maintenant Hannibal posé une question man nan laa mënee bokk ci force spéciale boo xamante ni période boobu nekkul mu woon fii Canada laa nekkoon lan moo firndeel leen est-ce que am ngeen benn transaction xaalis boo xamante ni maa leen yónni xaalis bi ma financé leen wala am ngeen benn vidéo ci man may wax ak ñoom wala am ngeen benn audio buy firnde man am naa benn relation ak ñoom wala lu gën a gaaw sax wala lu gën a simple xaaral ma jox leen sama téléphone ngeen xool su fekkee am na benn tur. maanaam euh, euh, nit yi ngeen di tuumal force spéciale soo leen gisee foofu benn numéro wala benn tur wala benn photo benn kenn ci moom c'est que c'est yi ngeen di ma tuumal mun na nekk dëgg ñoom ñu jël téléphone anibal Djim bi ñu fuyee ko du haut en bas ñu xool lépp gi ñu gisuñu fa dara ñu ne avocat bi léegi demal ba suba ñu woowaat la c'est ba léegi ñu ngi wër lu tax ñu koy jàpp jàpp nañ ko def nañu trois jours ba léegi amuñu motif valable donc ba benn jamono ñu yóbbu ko tribunal tribunal affaire force spéciale bi moo ko yóbbu woon foofu ñu def mm-hmm. retour au parquet lendemain bi mu ñëwaat ñu ne il paraît que Hannibal Djim finance un opposant politique dont ils ne veulent pas citer le nom maanaam Hannibal Djim day jox koppar benn opposant politique bu ñu bëggul tudd tur dem ba ci biir léegi nekkatul loolu nekk na ay affaire Copper Express xam nga dafa jéggi dayo ñoom ci trois retours de parquet hmm. def na dix jours commissariat central dix jours yi yëpp jour bu ñu xëy ñuy génn bu ak donc à travers Kopar Express day def manam li wax manam fraude fiscale xam nga chaan weesuwul lool parce que yow mënoo nek état mënoo nek justice nga tuumal nit ki dara chaque jour so hé nga changer nga changer manam tuuma yi ba indi yenen tuuma yu bess tout en sachant que Kopar Express ben entreprise sénégalaise la bu nekk fi ci Sénégal so buggee xam kan moom mom Kopar Express yow état bi am nga maanaam lu ñuy tuddee statut de l'entreprise ci statut yi da ngay xam kan mooy actionnaire Copar Express ñoom suñu buggee xam kan mooy actionnaire Copar Express xam nañu parce que xam nañu fan la siège Copar Express nekk nañu dem foofu ñu xool actionnaire yi suñu buggee xam nan la Copar Express di fonctionner ñoom xam nañu Adibal gi nekkul actionnaire Copar Express nekkul membre Copar Express client la comme ñëpp mais euh, la moo tax ñu ko siy tudd dañ ko gis aussi dafa am ay collecte de fonds yu bari yoo xam ne da ko siy def est-ce que loolu taxul nit yi yaakaar ne moom moomee membre la si Kopar Express xam nga euh, bugguma def benn publicité mais yow mi yaakaar naa ni am nga benn compte Orange Money am nga compte benn euh, xawma yeneen transaction d'argent yi soo nekkee client Orange Money xam nga mun nga def transaction yu Orange Money autorisé yëpp xam nga. Hannibal Njim dafa am application copar Express boo xamante ni da ci ubb ay cagnotte foofu noonu lay ubbee benn parenthèse Hannibal Njim commencé na def ay collecte de fonds wala dugg ci affaire sociale avant copar Express di di di commencé Hannibal Njim dafa yàgg def loolu pour la petite histoire Anibal Njim ak man 2000 mo avant sax man may delluwaat fii ci Sénégal moom 2013 la amoon benn mbaar. mu yar ay laadum amoon ay laadum yu bari mais ma ñëw fii 2014 ma bokk ak moom mbaar mi lu ñu amoon cay xar yépp lay jaay benn benn dem di faju ay soxla nit yoo xamante ni dañoo nekk ci situation de nécessité maanaam malaadu cancer yi ak yeneen anam en tout cas citoyen bu nekk ci jafe-jafe moom su fekkee ba xam cause bi daf ci jàpp et je tamit ay xarit yo xamanteni ci comme rek maintenant copar Express ñew avant copar Express sax and euh, réseau français moo moo amoon ay compte Litchi manam mm-hmm. da ngay ubi compte bi nga wax citoyen bu cas bi del ci contribuer ku nek day dem ba ci bir ay doomu mi euh, entreprise bu Express mu comme amna ben une entreprise locale buy def collecte yi et ñun ñuy continuer di entreprise française bi nañu promouvoir entreprise locale bi donc nous mu commencé def ay collecte Copper Express Copper Express buñ bu Hannibal doon ubi. day ubi cagnotte bi mu wo bepp sénégalais bu mëna contribuer ci cas spécifique bobu pour la plupart c'est des malades surtout les malades du cancer de sein surtout les femmes cause yooyu moo taxoon Antival di ubbi ay cagnotte affaire yooyu sénégalais yi di contribuer. Mhm. dañoo jot euh, comme né Hannibal Djim euh, bi mu nekkee ci kaso bi da doon wax par rapport ak euh, ñi nga xam ñoo di ay détenus ya fa nekkee seen anim gi nga xamné mom lañuy dundé ñu dégg ci surtout yow peut-être am nga benn publication bo ci def né dañ ko doon menacer. waaw avant mais egg ci pour tëj manam parenthèse ko par express bi cagnotte yu Hannibal doon def ci Kopar Express Hannibal dafa jël rapport détaillé rapport détaillé bi mooy maanaam benn benn livre détaillé bu mu jox bu mu jox juge bi mu ne rapport bi cagnotte bi ma mus a ubbi mi ngi fii ci rapport bi ku musu a contribuer un franc ci cagnotte bu ma ubbi mi ngi nii mi ngi nii ci eh, maanaam ci karne bi ku mus jot benn cagnotte bu ma ubbi mi ngi nii mais Hannibal ñu ngi koy jiiñ maanaam financement euh, maanaam euh, ñu ngi koy jiiñ maanaam ñu ne Hannibal dafa financé benn nit boo xamante ni mun a causer ay trouble wala di constituer benn attentat ay affaire terroriste yooyu mais Hannibal dafa leen di laaj ñi ma fi ñi ma defal cagnotte yëpp ñu ngi fii ci livre bi est-ce que mun ngeen duub baaraam ñu ne kii laa financé et qui terroriste la parce que suñu munee citer nit ñi damay soo ma mayee deux minutes ma citer nit ñi yow nga xool est-ce que nit ñi mun nga ci tuub mbaaral mu ne nga ne ko terroriste la dam lay génne rapport bi pour nga mun a ñii la Hannibal defar koppar rapport détaillé bii mi ngi fi Hannibal Njim dafa defar benn euh, benn benn ex soldat moo amoon ay jafe-jafe mu tudd Mohamed euh, Bachir Kanté nekkoon ci jafe-jafe mu perdre liggéeyam Hannibal ubbil ko kañot xaalis bi jot na ko est-ce que kooku terroriste la loolu question bi ma jox juge bi peut-être mun na ci répondre su doonoon Assane fay Assane fay sooy euh, jour bu teer bi comme comme commencé di rouler amoon na benn waa bu bu tuur euh, ñamu xar ci biir teer bi waaw ñu ñu jàpp ko euh, def ko garde à vue par la suite ñu relaxé ko Ali Hannibal ah qui de pour lay liguer à chaque fois day rassembler fofu ay affaire yu ñam ñam mu har diko yóbbu ci banlieue bi di jox ay haram ki ko ñu ko après su bi peut-être euh, développer élevage mu koku lañu xam nga avant di Hannibal diko ça sax militant APR la euh, bi niw bi benn rappeur la rappeur sénégalais dafa doon def rap dafa doon def dem ba ci kanam affaire bi doxatul euh, Pape Sidi Fall defoon benn reportage ci moom nit ñi ñëpp am yërmande ci moom xam nga nit ñi suñu gisee cas yooyu ñoom ñooy woo Hannibal ñu ne ah, Hannibal doo ubbi benn benn cagnotte ñu jàppale ki mu ubbi kañot ñu jàppale ñëw bi ñëw bi léegi génn na ci situation boobu ngir koppar bu Hannibal ubbi woon xaalis bi ci loxo Pape Sidi Fall la jaar jokko ko est-ce que ñëw bi terroriste la. bi nañu benn cagnotte boo xamante ni pour ñu nekk ci prison yi ñu nekk ci prison yi maanaam seen situation dafa metti surtout ak période tàngaay bi Hannibal ubbi woon na benn cagnotte pour ñu jàppale leen jënd leen ay ventilo ay matelas ak ak lu ñuy dundee est-ce que nit ki su nekkee ci prison est-ce que jéelmaan mala la est que waruñu jàppale. suñu mbokk prisonnier yi xam nga xam nga avant muy muy dugg prison est-ce que moom xamoon na day dugg prison avant mu dugg prison mu doon jàppale jelmaan yi maintenant ubbi na benn cagnotte pour Pape Alé est-ce que Pape Alé terroriste la maintenant ubbi na benn cagnotte pour Pape Alé Niang ubbi na benn cagnotte tamit pour

pour Aide, Nguène tamit ben femme lañu doon jappalé parce que dafa fébaron tamit ben pour Nit Dof jo buñu ñu un concert Nit Dof ak dépense bu mu show of the year nañu ubi ñu parce que def na dépense à la dernière minute manam ñu xagn ko concert les nañ sénégalais yi jappalé ko jox pour imam Aliou est-ce que Alioune imaam Alioune ndaw Ndao terroriste la parce que kañot boobu lu ko taxoon jóg mooy maanaam imaam dafa feebar dañ ko buggoon évacuer avant lu xew-xew mais yàlla def na ni euh, avant ñu pare kañot bi sax euh, yàlla euh, jël bakkanam xaalis boobu ay doomu imaam ndaw ñoo ko jël ba tey nii ay doomu imaam ndaw dañuy woote fii di ko ñaanal di ko gërëm juste pour jeexal euh, ubbi nañu benn cagnotte pour Guy Marius Sagna mooy époque bu ñu bu Guy Marius Sagna euh, di nekkoon di dugg kaso di am jafe-jafe pour dem gis sénégalais yi ñu ubbil ko benn cagnotte moom tamit pour ñu mun ko jëndal oto pour mu dox soxla sénégalais ay genre ay genre cagnotte yii la ubb yii peut-être ñoo gën a fes parce que li mooy rapport am ak Copar Express maintenant ci rapport bi Comment tu contribuer Comment mus contribuer 100 francs, sa tur mi ngi ci ci rapport bi maanaam opérateur bi nga utiliser mi ci rapport bi rapport bi la jël def ko benn graphique ñu jox ko juge bi ñu joxaale ko rapport détaillé bi lii moo lié Hannibal Djim ak Copar Express est-ce que yi ma cité est-ce que mus nga duut benn baaraam nga ne ma terroriste kenn lañ ci doon joxoñ baaraamu tuuma dañ ko mujjee bàyyi mu dem. imaam Badara imaam ba Badara Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm kooku lañ doon duum tuuma terroriste tëj ko trois ans ba pare ñëwaat c'est cette justice Sénégal setal deram mi ngi noon relation Hannibal Djim ak Ousmane Sonko. ndax xam nañ coopère espèce wala coow lu bëri foofu lay ñëw balaa ñu ñëw si wàllum détention bi nga xam ne moom la nekk mm-hmm. euh, ban relation la Hannibal Djim amoon ak Sonko xam nga c'est une relation entre citoyens maanaam xam nga sooy xeex dara keneen di xeex dara soo leen amee benn gëm-gëm nit ñi mun nañu penser que yeneen ànd alors Hannibal Djim du base animal Hannibal Djim du militant Pastef musul militer Pastef bokkul sax ci benn instance Pastef mais comme tout citoyen maanaam Hannibal Djim est membre de la société civile maanaam akku euh, ak akku doomu aadama yi lay lay xeexal doomu aadama yi lay xeexal maanaam ku mu gis maanaam nga nekk ci benn situation d'injustice wala ci benn situation d'oppression mu lay jàppale loolu moo leen di lié ñoo bokk Sénégal loolu kese. bi mu nekkee ci kaso bi euh, d'après les informations dañoo dégg ne euh, nga ne dafa am ñu ko doon menacer ci biir kaso bi. waaw Hannibal Djim daa daa constaté yeneen abus de pouvoir ci yeneen garde doon def ci détenu yi bind benn rapport mu dem jëbal ko directeur Robes mu ne garde yi kii kii kii ak kii ñu ngi def lii lii lii ak lii yow bu mu defee loolu garde yi menacé ko ñu ne ko dañ lay sanctionné dañ lay def nangam nangam ak nangam donc ci réew mi loolu mooy firnde ci réew mi maanaam soo soo nekkee benn bañkat soo nekkee nit maanaam ku bëggul injustice lii lii rek ngay ci am maanaam ay menace de mort ay tëj kaso ay mbir yu mel noonu loolu moo nekkoon problème am ci Rebeuss. Mhm. boobu ak tey bi fi nekk ñu dégg ko mu am benn test boo xam ne moom la def. né day préfère ñak bakenem ci café bi mo gën ñu tejj ko fa ci anim go xamné jaarul yoon ñu dégg ne moom ci grève euh, de la faim euh, ndax lolé c'est vrai. waaw c'est vrai Hannibal Djim dañ ko japp légui depuis le 8 février légui la def 6 mois ñu ngi ci 7e mois bi mom jour buñ ko japp daf ñu wax laisser la justice faire des enquêtes xam nga suñu ma jàppee peut-être ñom dañoo am.

il faut ma jël sama décision bopp manam ma def grève de la faim grève de la faim soo gisee prisonniers yi di def grève grève de la faim c'est que dafa sës dafa gis ni soo nekkee prison moom munoo def interview di dénoncer munoo def conférence de presse di dénoncer munoo yuuxu ñu lay dégg ben maanaam euh, euh, qui euh, nga am ben objet de lutte nga am moy nga def grève de la faim xam koo gis muy def grève de la faim mu xañ boppam lekk ak naan c'est que dafa sos sos bi moo tax mu def grève de la fin bi grève de la faim boobu d'après les infos ñu ngi dégg ne moo ngi ci ay jafe-jafe wàllu wér-gu-yaram waaw parce que tey nit ku toog ay jours jour tey mooy dix-neuvième jour muy def grève de la faim donc dix-neuf jours tey Hannibal lekkul loolu moo tax euh, wér-gu-yaramam demul noonu ñu évacuer ko nag hôpital principal aux urgences mu egg urgence bi urgence nous ñu un service de réanimation parce que qui état am dafa critique réanimation tamit mi ngi ça fait ça fait six jours si je ne me trompe pas six jours la def réanimation mais démb démb rek ci guddi lañu lañu alerté ku état am dafa critique parce que nous sommes euh, docteur yi à chaque fois dañ koy yé parce que su amé ben taux de glycémie dafa faible xawma ma c'est quelque chose zéro soixante quelque chose comme ça donc loolu moo duñ ko bàyyi mu nelew yenen nelew yi su commencé nelew foo ñu yee ko sinon su nelewé nelew profond dafa tomber dans le coma donc situation animale léegi day dem di critique parce que des fois damay jot appel sénégalais yi di ma woo pour am ay nouvelles animal xam nga nit ku tok 19 jours lekkul jëlul ay soin su doon jël soin sax mu xaw a tane jëlul soin lekkut naanul njaboot bi famille bi euh, kañ ñu gëj a gis euh, animal ñun gëj nañ jour bu animal def grève de la faim jour boobu ñoom la ñu jël décision ñu ne tant que mi ngi def des grève de la faim kenn du ko gis kenn du ko teg bët il y a lundi bii passé avocat Hannibal njiim dem hôpital pour gis client jabaru Hannibal dem hôpital pour gis jëkkëram yaayu Hannibal Djim dem hôpital pour gis doomam ñu lànk bañ ñu nekk kenn du ko gis parce que ay ordre la tout en sachant que yeneen détenu yu nekk foofu yu nekk ci même situation Hannibal ñu ngi am ay visite seen seen jabar ñu ngi am seen visite avocat

de, de l'administrateur directeur de Robus, woowaat maître Moussa Sarr euh, présenter ko ay excuses mu reconnaître que nous nous doon def lu dëgg du yoon Hannibal Djim war am droit recevoir avocat avocat bi am droit teg bët client am jour boobu ba léegi avocat bi mi ngi koy gis jabaram mi ngi koy gis. Hannibal bu nekkee ne grève de faim bi eh, grève de la fin bi da ko continuer ndax état am critique ndax jéem ngeen waxtaan ak moom ngir mu ba wala. pour nga waxtaan ak nit fo nga gis ko état mi gëna critique parce que ku grève de la faim tok 19 jours tay lekkoo nan naanoo lu am sugar forcément sa état day gëna critique forcément sa bakkan euh, mi ngi ci xotu gerte donc situation bu Hannibal nek état du Sénégal moo ko teg. Mhm. Hannibal nek quelqu'un ko xamné Canada la nek mhm. ndax def ngeen ab ben communiqué wala bind ngir yegal ne wa Canada am nañ seen benn euh kenn ko xam ne fa la euh, fa lay dund. Mhm. am na ay jafe-jafe. démb rek le africain yu nek Canada ak ay organisation yu nek Canada le gars yi def ben ben communiqué pour expliquer situation Hannibal affaire bi am 76 signataires organisation et personnalité ñu djobol ko ministre des affaires étrangères canadien ñu djobol ko tamit euh, sen ben député bu nek pour ñu mëna wax ci kaw Hannibal parce que Hannibal instant bi nii euh, vit mo nek en danger donc ñu nek nekk foofu ñu ngi def genre démarches. Ah, la famille Anibal, takk jabar matul sax weer ñu teg ko loxo ak waajuram bu jigéen euh, euh, nan la ñuy dundee situation bi. situation bu métti la situation bu nakar la parce que Hannibal ku ko xam xam ni ku jege yaayam la ku ku bugg a mbokk la mais comme ay jullit lañu dañu gëm yàlla ñu ngi koy dund avec beaucoup do philosophie. ak situation bi lu mu metti metti metti métti ñun ay jullit lañ ñu ngi koy dund ak beaucoup de philosophie ñu ngi koy nakaru nag parce que lu mu situation bu mu nekk ni ay doomu aadama ñoo ko ko teg ay doomu aadama ñoo gis Hannibal ñu ne kii foo ñu buntu xatal ko parce que Hannibal defu lu tax muy nekk foofu jamono gi lan ngeen bëgg ñu libéré ko purement et simplement parce que ñoom ñoo gën a xam Hannibal defut dara lu tax muy tok fofu. deful dara lu tax muy tok fofu. Ñom xam nañ ko juge bi juge bi moko gëna xam parce que jour bu mu woowee Hannibal pour pour entendre ko sur le fond quatre questions lañ ko poser. xam nga musoo jàpp munoo jàpp nit nga ko jiiñ des faits aussi graves mu ñew pour nga pour nga poser ko ay questions sur le fond nga laaj ko quatre questions question bu mu poser nga dégg ko yow da ngay xeeb question bi du tellement après da ngay wax est-ce que question yi ñoo tax ñu jàpp nit ki ñu koy laaj est-ce que yow cagnotte bi ngay ubbi est-ce que am nga ci bénéfice ñu koy laaj est-ce que yow copar Express membre nga ci est-ce que yow da ngay financer ben opposant xam nga kay xam nga li question yu tollu ni ñoo tax ñu japp ben doom adam ñu tot ko ñu tej ko kasso 6 mois xam nga nit soo ko jàppee sax bu toll dara bo xamanteni ni nopp mun na ko nga jiñ ko mais ñoom sax xamuñu lu tax ñu japp ko dernier mot lan lay do ñoo ngi ñoo ngi remercier sénégalais yi parce que gis nañu soutien bi gis nañu taxawaayu sénégalais ci mbiru Hannibal à travers les messages les visites les appels ñu ngi woo famille de détenus yëpp ñu rejoindre maanaam collectif bu juddu démb collectif bi famille de détenus yëpp ñoo ko taxawal pour ñu mun a xeex pour ñu bàyyi suñu suñu citoyen sénégalais yi parce que Hannibal waxu Hannibal Lim la ñu nekk di wax mais ñu nekk ci situation Hannibal dañoo bari fii ku wax ñu jàpp tëj dëkk bi léegi comme Lido jàpp naa ko tëj naa ko jàpp naa ko tëj naa jàpp naa Abdou Karim Gueye tëj naa ko jàpp naa Cheikh Oumar Diagne tëj naa ko jàpp naa Bassirou jomay Faye tëj naa ko fii jàpp tëj jàpp tëj dëkk bi comme Lido cest dire nit soo jiitee ab askan foo nga am yërmande ci ñoom te bañ a nekk fii di jaay doole yàlla rek moo am doole yàlla rek mooy buur yëpp day jeex doomu aadama kenn def loo def moom doomu aadama du yàlla namul ci moom nañu nañu rafetal nañu bàyyi buntu xatal bi nañu bàyyi lu ñu nekk di def citoyen yi maa ngi leen di gërëm di leen sant